waaw man la Ibou Ndaw dëkk Parcelles Assainies bon maa ngi leen di nuyu quoi di leen gërëm. Ibou Ndaw noo gisee gouvernement bu bees bi ak euh, ni ci euh, Idrissa Seck duggee nangu maintien du président Macky Sall. bon gis nga dañu toll jamono joo xamante ne fu mu nekk dëkk àdduna bi yëpp dafa metti Idi li ko war rek la def mais Macky xam na ne Idrissa Seck fauteuil euh, place su président de la république la la la mës a bëgg kon tey su ko ooyee pour mu ñëw pour mu jàpp ci liggéey bi mais da ciy jàpp la ñu waxoon ci sa Seck ba tax na mu génne kaset wax ci Macky Sall kooku wax la rek dëkk bi ñu ñoo ko bokk ñoo ko mën a defaral sunu bopp engagement la jël te xam naa ne dina ci génn te waxtaan nañ ci man loolu laa jàpp. du complot du dara ku la rek da ngay dem. mais pour yow gouvernement bu bépp si di liggéey kay la wala lal la. gëm naa ne dinañ liggéey man gëm naa loolu man gëm naa ni gars yi dinañ liggéey bu baax man loolu gëm naa ko te Idi dina def loolu. yow parcelle nga dëkk comme ni nga ko waxee gis nañ ne ku mel ni Amadou Ba dëkkoon parcelle nekkoon fa leader yéen jiite fa yi Benno Bokk Yaakaar tey gis nañ ni. Euh, bokkul ci gouvernement bu bees bi mu doon ñoo xam loo xam ne bett na ñeneen ñoo xam ne bettu leen yow noo accueillir kii boobu décision boobu le fait que Macky Sall bokk boolewul euh, Amadou Ba ci gouvernement bu bees bu ko ci boolewul rek am na lu tax man bu ko ci boolewul rek am na lu tax waxtaan la nag mais nit ki da ngay nangu dogal Amadou Ba avant muy ñëw am na ñu fa fekkoon ñu rocci kooku teg fa Amadou Ba wërsëgu nit fu mu jeex rek dafay jeex. mais ñoom ñaar ànd nañ ànd bu rafet te Macky bàyyiwu ko man gëm naa ne i bàyyiwu ko dina am feneen fu mu ko jàppale loolu réew mi nag ñu ñoo ko bokk euh, ñun sénégalais yi ñoo war a liggéey pour defar suñu réew dëkk président defaru ko ñu dëkk ca dëkk ba ñooy defar dëkk ba dëkk président defaru ko mag Macky day def rekk après ñu day dem mais ñun am personne ñun sénégalais yi ñoo war a jàppoo liggéey pour Sénégal développé Burkina kew at kokorong la ñu am développé nañ ñun Sénégal ñun sénégalais ci suñu biir ñoo war liggéey ñun dañu liggéeyul dañu retard fii président yoru ko du président moo yor Sénégal fii kilifa yi ñoo fi yor Sénégal te président bu fi àndut ak kilifa da ngay daanu dañuy ñaan yàlla li ñu sumb yàlla na ko yàlla mottali yàlla bu yaakaar tas Idi ci gouvernement bi la nekkoon dugg na génnaat dugg na génnaat Macky frère am la oo na ko ñëw na ko mais da koy jàppale bu fekkoon ne nit ki loo wax rek ci nit doo ko def mais chaque jour nga toon sunu borom te du la rey waxu politique la gëm naa ne Idi dafay ñëw régler problème bi mu jeex ñoom ñaar ñu ànd su ko même su ko mais Abdou Diouf a ngi nii Senghor dafa def li muy def ba pare passe ball bi Abdou Diouf bu ko ko naree jox rek amul benn problème ñu ànd rek liggéey suñu Sénégal mu jëm kanam te bàyyi wax ji par par parloo bi dañu war a baax liggéey Idi homme politique la xam na terrain bi mën na lijjanti mag yi doy na ko mu oo ko mu waxtaan at moom nañ leen bàyyi ñu liggéey euh, yal na ci yàlla dugal loxoom daal waaw na ci yàlla dugal loxoom man loolu laa mën a wax ko ok. Euh, Djibril Ndour laa tudd gestionnaire bu retraité impôt domaine laa nekkoon. yow ancien fonctionnaire de retraité impôt domaine nga kon war nga mën a am loo wax lu yenu maanaa ci composition nouveau gouvernement bi ak ni ni nga gisee entrée Idrissa Seck bi mu accepté maintien du président de la république d' après ni nga ko waxee. man kay lu ñu siy ñaan ñi nga xam ne ñoo ñëw ñu liggéey rek jàppoo liggéey rek liggéey bi mooy utal suñu doom yi liggéey. loolu rek mooy principe bi ndax xale yi doo gisee ñuy dem si géej gi métti na trop famille boo dugg rek am na ñu dem si géej gi kon boog du yàlla may lii ñu am ko ñëpp bokk ko yàlla ñu yàlla may bay ñu ñu juboo rek ñu juboo rek xale yi liggéey loolu rek mooy suñu suñu objectif moom nag ñëw na ah gisoon nañ ko ñu ngi koy xool ba xam fu lu muy defaat. mais ñëw Idrissa Seck bi yow ban analyse nga rek pour gën a juboo rek gën a juboo rek ñëw na. nañ xool ba xam nu muy def ñu juboo rek liggéey. mais ñi mu ànd ñi mu bokkaloon coalition ba ñu porté candidature euh, mille élection 2019 bi ba mu jël deuxième place euh, ñu bëre ŋaññi nañ le fait mu dugg ci gouvernement bi parce que pour ñoom du loolu la ñu wante woon yow ban jàngat nga ci def. Euh, du ma si mën a wax dara parce que barke démb jatare lañ gis si muy wax man li mu wax dafa ma yéem sax parce moom bi ñu ko laajee dana moom Idrissa Seck wax ko daal. léegi ma ñëw formation bi ba gis ci turam loolu daf ma jaaxal jaaxal na ma trop mais yëpp ci jàmm rek la yëpp ci jàmm rek nañ indi jàmm rek liggéey ci jàmm. dafa mel ni coalition Idrissa Seck ñoom dañ doon nëbb seen jeu. waaw parce que jaatale li mu wax mu kooñu woowu ko réew si waxam. woowu ñu ko réew defuñu ko dara ba ñu nommé ko ministre loolu man dafa jaaxal trop. jaaxal jàpp nga ne gouvernement bi nga gisee nii liggéeykat yi ñoo fa nekk wala vos espoirs ont été déçus. Euh, man si li ma xalaat. nit duñ la jëlee dara ñëpp contrôle ñu jël la indi la di nga am jom pour liggéey si sama xalaat na comme que ku nekk yaa ngi xalaat naan du ñëw du ñëw ba mu ñëw du ñëwee dina am jom pour liggéey. gouvernement bi en tant que membre yi nga ko gis. Hmm. si jàpp nga ne ñii ay liggéeykat la ñu war a liggéey. man nag ñi ma ñi ma gënoon miin ñi ma gënoon miin laa gisatul ñi gënoon miin gisuñu leen te ñu ay liggéeykat la ñu woon ñii nag ah, xamaluñu leen dara yàlla ñu yàlla may ñu ñëw liggéey ci jàmm ak salaam. jeex na incha allah ok merci. waaw Rachid ñu ngi la fekk fii ci sa place bi Liberté 5 fii bëggoon taataan sa xalaat rek ci composition gouvernement bu bees bi ak Idrissa Seck mu nangoo ñëw liggéey ak Macky Sall. voilà comme nu ma ko wax léegi rek ci interview bële donc euh, situation la boo xam ne su fekkee à vrai dire nu ko Idrissa Seck waxee noonu la demee donc dañu dem di waxtaan ci ay processus de waxtaan depuis 15 mois de cela. donc ñuy waxtaan ci situation réew mi fu réew mi toll bu fekkente ni bii dañ ko def positivement pour loo xamante ni bii tey par exemple day nekk euh, développement Sénégal donc euh, ak ci économie Sénégal vraiment loolu dañu si kontaan mais su fekkee nag dañ ko def parce que dañu bëgg teg ay deal comme nu ko xale yi di waxee xam nga di def ay jeu tactique ci wàllu politique donc ça ñun dañu wax non arrêter ces jeux de dames ces jeux de politique politicienne manaam seen seen seen bëre làmbi golo yooyu moom bu fekk loolu la moom ñun wax dëgg yàlla amuñu so soxlawuñu loolu lu ñu soxla mooy luy dimbali xale yi ba duñu dem ci gaal yi lu ñu soxla mooy tey luy dimbali borom kër yi parce que ku mel ni man tey mosuma nangu di di am ay stress wala may jaaxle ci suma àdduna waaye nag depuis que corona ñëw maa ngi commencé loolu di ma dal te musuma ko nangu nag parce que man bu bokk moon ci catégorie nit yu nga xam ne dañuy nangu stressé parce que Baye Fall la ras la donc mais actuellement loolu mu ngi may dal xam naa nag ba du man rek borom kër yu bari la waaye nag ñuy ñaan suñu état yi ñu changer seen politique xam nga jéem a xool économie bi vraiment nu ñu koy nu ñu koy nu ñu koy relever xam nga comme ça sénégalais yi mun a mun a amaat tuuti espoir quoi voilà donc appel boobu rek la ñu def di di woo suñu nitu politique yi ñu ñu dox ci dëgg quoi vraiment sauver askan bi parce que réew mi fu muy dem nii vraiment baaxul te bu ñu deful ndànk ñun ñëpp dañu regretter quoi incha allah. mais en tant qu'opérateur bi ak ak gouvernement bu bi mën a dem ci mooy li ma la doon wax léegi rek xam nga lépp loo gis ci àdduna rek bu ko dëgg lalee bu ko dëgg suudee rek incha allah rabbi résultat yi mun na positif mais su fekk dañu ko lal ci affaire affaire affaire politique. xam nga ay comme ni ñu koy wax ay jeu de calcul donc l'institution a formellement interdit une troisième mandat chez Macky Sall donc Macky Sall ne, ne fasse pas des jeux de tactique n'est-ce pas pour créer ces échelons ça va pas passer avec les Sénégalais ce qui s'est passé en Guinée en Côte d'Ivoire en Mali ça ne se produit pas au Sénégal les Sénégalais ne sont pas les Guinéens ils ne sont pas non encore plus les Ivoiriens moi j'ai j'ai fait beaucoup de pays en Afrique mais nous sommes différents le Sénégalais est objectif c'est un homme n'est-ce pas ki respecte sa personne donc peut-être que actuellement sax léegi jikko yàqu na mais sénégalais dëgg dafa dafa gëm boppam donc gaawul yëngatu mais bu ko nit yëngalee dina xamu yoonam nekku ci kon ñoom nañ moytu ay ay soulèvement populaire nañ moytu di di diggante ak askan bi loo xam ne duñu ko def donc ñu ñu xool économie bi vraiment nan la ñuy def pour yëkkati ko parce que nit ñi sonn nañ tam xam nga ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci terrain bi xamoon fekkee woon démb bërki démb ak tey xam nañ ne y a un changement radical au niveau de l'économie ça marche plus tout le monde et fatigué xam nga donc tey ñiy tàllal loxo sax ñoom daanaka ñoom ñoo gën a taxaw sax ñi nga xam ne dañu toog si place yi di liggéey donc loolu loolu phénomène bu dawaar la jarul seetaan parce que réew économie moo koy doxal xam nga ni mu def ubbi euh, frontières yi chez les occidentaux na ko def mu ubbi frontières yi en Afrique parce que y a un en Afrique qui circule et qui aide certaines minori minoritaires populations am na ay produits yu jóge vers euh, Nigéria Niger euh, Côte d'Ivoire Burkina Faso ainsi de suite di dugg ci Afrique di di dugg ci Afrique de l'Ouest bi yooyu yooyu yooyu yooyu dañu ko war a favoriser mais bu ñu ci Afrique ubbi occidentaux loolu baaxul ci économie il faut ouvert il faut ouvrir les portes de l'économie donc tu ouvres les portes de l'économie li wax wolof di wax bay ci sa mbeewu tànk donc commencé ko ci ci dëkk yi la gën a jege nga ubbil leen voilà CEDEAO bi affaire bi dox parce que foofu am na lu fay dox xoolal tey supposons ñun suñu foire yi ñuy doxal ni donc ça rien ne marche parce qu'on n'a pas fait l'international on n'a le festival jazz il y a beaucoup de foires qu'on euh, au Sénégal en Afrique yëpp yàqu na donc ça là ça à nous c'est dur donc il a des points elles sont sensibles dans un pays il faut que l'État fasse quelque chose n'est-ce pas, pour l'économie, quoi, parce que les gens, on en a vraiment besoin de ça. Vraiment. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Ah, man Abdou Khadr, comment l'a tout Wow. Donc, euh, Liberté 5. waaw euh, Abdou Khadr ñu ngi la fekk si atelier bi fii euh, terminus Liberté cinq ñëwoon laaj sa xalaat ci composition gouvernement bu bees bi ak ni nga gisee dugg Idrissa Seck ak ay nitam ci gouvernement Macky Sall bu bees bi waaw. nu ma ko gisee daal moom gisee ma ko gisee mu nen nañu déggoo liggéey waaw nañ déggoo liggéey dëkk bi mun a développer ñun ñëpp ñu bugg mun a liggéey liggéey bi dox wante na nompa ñoom ñu ñëw ah, ñu def ko affaire politicien waaw waaw ñu def seen deal loolu moom kenn d'accordu ci waaw liggéey liggéey daal moo ñu tax a jóg nañu liggéey rek benn yoon waaw réew bi ñun ñëpp a ko bokk dëkk bi nag mi ngi frenkulaay dara amul waaw ñun ouvrier yaa ngi nii toog waaw ñun ñii ñu ouvrier yaa ngi nii toog dëkk bi neexagul léegi nag am nañ ci yaakaar nag yaakaar am nañ ko ci waaw wante nag nit ñi nu ñuy gisee di wax naan ne ah kii dafay jox kii pouvoir bi yàlla moo xam yàlla mooy joxe waaw yàlla suy joxe du wax kenn maa ngi def lii waaw nit ki moom sabablu a am di sabablu di def léegi nag su sababloo yàlla moom mooy joxe lu si munti nekk ñu xam ne ne ah yàlla loolu la loolu la tudd waaw. mais dugg bi nga xam ne ay jamono yi sorewul sax mu ngi doon ŋàññ gouvernement Macky sàll bi dox liggéeyul ak yi mel noonu tey ji tey. mu nangu ñëw liggéey ak Macky Sall ban jàngat nga ci def yow. waaw ban jàngat laa ci def mooy jàngat bi mooy ah mbirum politicien la waaye boo xam ne ne ku nekk day xool li nga xam ne ne moom laa arrangé mu dugg ci loolu lu la arrangé wul doo dugg ci loolu nit ak nit dañuy bokk ndey ak baay wante duñ juboo ah. léegi nag su loolu amee yàlla def na ne ba yàlla def na ne ba fengooloo na nee nañu léegi dañuy euh, toog waxtaan euh, liggéey ah nañu liggéey ñun ñu ngi fii de dawuñu kiiwuñu réew mi lañu am waaw. kon yow jàpp nga ne lii intérêt Sénégal la. ah intérêt la ñun ñëpp fii la nekk waaw fu mu toll nii ñiiroo xiiroo ŋaayaw bi jaru ko nañu liggéey daal man noonu laa ko gisee nañ liggéey waaw. président bi daal mi ngi si yoonam mi ngi liggéey normal léegi nag kii nga xam ne ne ñëw na ko wut si na ko jox xolam ñu liggéey li nga xam ne ne moom la war a def mu def ko waaw. man yéen ouvrier en tant que wàllu bi ngeen féetee. Hmm. ban attente ngeen am ci gouvernement bu bees bi. ah suñ ñu jàppale woon de moom mu baax ñu cadré ñu ñu jox ñu situation yu baax ñun tamit ci réew mi lañ dëkk wante chaque instant dàq fii dàq fële dàq fii dàq fële loolu yorul réew mi. waaw ñun ouvrier yi daal ñu ngi nii di tàllal suñu loxo waaw nañu bàyyi suñu place ñu liggéey wala su fekkee fii arrangé wu ñun nañ ñu jox feneen foo xam ne na ñu toog mun a xam na ne fii daal fii la ñu war a mun a liggéey wante ñu ngi toog rek jàpp ci yàll waaw lu ñu gis moom la ñuy liggéey waaw ah. ah. ok bonsoir monsieur bonsoir je Moustapha Ndour waay alors Moustapha euh, ñu ngi la fekk fii ci terminus euh, Liberté 5 bëggoon taataan sa xalaat ci composition gouvernement bu bees bi ak ni nga gisee Idrissa Seck ni mu duggee ci gouvernement ak ay nitam waaw c'est-à-dire euh, gouvernement bu bees bi man je suis d'accord avec le président parce que aujourd'hui la situation économique du monde le Sénégal a besoin de toutes les forces vives de la nation pour redresser le pays c'est pourquoi je suis d'accord avec C'est-à-dire nous devons laisser nos, nos, ambitions personnelles de côté. Et de telle sorte que nous ñu toog sommes regroupés. xool ku nekk ku am expérience bi nga am ku ñu ñëpp ñu mer li tubaab di waxee ku nekk andi sa xalaat li nga xam yëpp ñu redresser Sénégal parce que ñun ñëpp Sénégal lañ bokk quoi waaw mais ñu bàyyi daal euh, les ambitions personnelles daal ñu mettre ko à côté quoi waaw man je suis avec Idriss je ne suis pas de Rewmi ni de l'APR mais que le il une expérience boo xam ne bon ñëpp a ko xam quoi jaar na si état xam na état ni fonctionner vraiment je d'accord avec lui quoi. waaw am na ñuy wax ni li muy def nii yëpp moom ak Macky ay calcul la xëy na Macky bëgg nguur gi wala Macky ci boppam dafa bëgg a troisième mandat yow ban jàngat nga def ci loolu. ah loolu c'est-à-dire du fal sénégalais yi ñooy fal. comme naa nga du le moment venu sénégalais yi 2024 ñëwagul fekk 2024 ans la lu ne xool situation économique réew bi mais je prends l' de la France mais Macron bi situation Covid 19 dafa appeler toutes les forces vives de la nation opposition ñëpp uy si ko mais Sénégal pourquoi mu def nañ bàyyi les réussir Sénégal yëpp réussir mais am na ñoo xam ne dañuy ñaan yàlla sa peut être bu mu réussir ah si opposition bi ah moi je pas d' comme le gars comme Sonko man je pas d' avec lui ni muy doxalee moom amul dafa mel ne amul ambition pour le Sénégal fu ñu ko ooyee du foo noonu nag munoo munoo diriger réew noonu. kon yow jàpp nga ne gouvernement bu bees bu Macky Sall teg nii gouvernement liggéeykaay la. ah mais ah, bon am nañ si yaakaar ah mais dañ leen di bàyyi ñu def nag quoi parce que gouvernement bi jëlaguñ fonction mais am nañ si yaakaar quoi yaakaar rek lañ si ama ah. mais nag yàlla bu yaakaar bi tas loolu rek laa si am lu may wax ah. soxna si euh, ñu ngi tas ak yow fii ci terminus Liberté 5 doon taataan rek xalaatu citoyen yi ci sant bu ñu am ci gouvernement bu bees bi nga xam ne Macky teg na ko ak ni ci euh, Idrissa Seck duggee ak ay nitam. waaw Idi de moom mu jëkkoon nekk premier ministre ci gouvernement Macky la kon nag bu dellu see ah man dama foog ni dafa am daal lu tax mu dellu si man daal loolu laa gis loolay sama xalaat daal dafa am lu tax mu dellu si. waaw voilà jàpp nga ne ñëw Idrissa Seck bi. Mhm. lu war a arranger réew mi la. non je pense que je pense pas. que ni war na leen arrangé waaw loolu moom xalaatuma loolu daal. man daal dama xalaat ni daal dafa am lu tax mu dellu si xëy na ñoom ñaar daal am na lu ñu waxante tax mu dellu si loolu daal laa ci am lu ma ciy wax man.